mbaay vidéo bi xam ma soxna Mbodia mbaay nu ma ko tuddee wokke wokke waaw kay laaj ma wokke ci biir néeg ma wax leen ko mooy jég bu tëdd ci biir néeg tey provoqué et eh, jigéen da ngay provoqué dangay ngay da ngay déclarer guerre waaw di wokke ci biir néeg waaye nekk ak góor bu réagir doo réagir bu la ko góor ko wokku doo ko wokk bu tegewul tànk doo ko teg tànk yow jéemoo benn effort lépp ku góor ki la e dem ba góor di la wax yow ko jigéen ki fi nga nekk moom ci biir néeg bi foo ko war a yegg ak noo war a defee et loolu ku mu dal kasara naar laay dal na la de yow jigéen ji yow lu la dal yow yow koo yam ba tëdd ci biir néeg bii dem ba góor di la jàngal foo nga ko war a yegg am na góor ñu jongee ba tëdd ci suuf da damaa def vidéo boobu vidéo góor gu jonge dama koo def góor gu jonge ba tëdd ci suuf mais am na góor yoo xam ne seeni jabara mel ni yat ñoo mel ni yat duñu puus duñu paas njëkk a tëdd mujjee yeewu waaw kay te ngeen di def nag tàkku saani jeeg di daan def di sañse di toog ak moom ci biir kër gi waaye mel ni Mbodja Mbaye bala ngaa sañse jëm xew dem ba sa jëkk a defee ne foo sañse rek xew nga jëm e xoolal dee leen wàññi nag jigéen ñi tamit lu ñu manqué bari na de jigéen ñi lu ñu manqué bari na de man de soxna Mbodja Mbaye fu ma dugg ma mitti waaw kay fu ma dugg rek day mitti nag gis nga dëgg du rombi nopp te gis nga vidéo yii kay def vidéo yi sax da cay jàngaale ab jeeg ngay support ñu ko te doo dëggat bopp neex a waxal waaw ab dee da ngay suppan ñu ko tey dëgër te bañ a dëgër bopp jigéen da ngay teel a di sangu tàkkusaan dañ ko daan def defar néegu ngoon gi ngoon jot nga defaraat sa néeg ba mu tarkal la sango ba set cëpp solo oyof am na yére yoo xam ne xew la mën a dem mais am na yoo xam ne ci biir kër lay dem def say marinière ak say robb yu baax yi di ko sànneekoo ci biir kër gi sa jëkkër miin ko ci yow waaye dema dema dema dem ba yow foo soloo sa borom kër defee ne xew nga jëm eh déedéet te xool ab jeeg da ngay wokke ci biir néeg vidéo bi yow wokkee la tudd wokkee dafa baax ci jeeg ab jeeg doon zëmm rek niw yat sa jëkkër lu mu réagirul doo ko def provoqué woo xeex yow jéemoo xeex atte woo xeex dóor a fay woo loolu lu mu doon yow yow jeeg bi lan moo la dal jeeg ba la gën a nangu nag di provoqué xeex yow xoolal moo la gën a xoolal jubbanti doom ab jeeg da ngay nangu di provoqué te am na loo xam ne boo ko nanguwul provocation munu fa am góor ñi daf ñu de bëgg nañ lu neex de boo jëlee mbooja mbaay mi muy provoqué ah bokkut ak mbooja mbaay mu dul provoqué kenn de ka dul provoqué te xaar ku dangay gaaw a sàppe de ku góor ka ngay génne ni ku am na góor ñu jonge loolu te nangu ci seeni jabar te mën jigéen tarkal la te mën ci jigéen lu ne tey def ci jigéen lu ne waaye seeni problème mooy seeni jabar lañu xamut nan leen leen di def nun leen di def yow jigéen dangaa war a jàngub sëy gis nga jigéen lépp loo jàng te jàngub sëy yàq nga ko lépp loo jàng ci dëkk-dëkk bii tamit te jàngoo boole woo ca say eh xoolal sa defet day yomb parce que da ngaa ñaan yàlla say yow boo toogee ba 30 ans 40 ba dugg 50 ans moo jëkkër da ngay mujj waaye di looy bëgg jëkkër ku lay ñaanal di la ñaanal jëkkër nga kontaan lool et eh, kon boo demee ba war a sëy waroo mën a mokkal sëy boo demee ba war a sëy war ngaa mën a téye sëy maîtriser sëy di sëy sëy bi waaye toog ni yàcc jéemoo jàng dara ci sëy ba xëy ba ñu teg la cib sëy nga bëgg a lijjanti sëy mënta nekk dem ba réer góor di la woon fa ngay jaaral fa ngay ginnee ko eh, loolu ko mu dal kasara naaru laay dal na la góor ñu jonge ñaa ngi fi de am pagaay waaye jigéen ñi mokkut ni yaaj ni zëmm zëmmiral niw yat ñi ngi fi am pagaay te jigéen jooj nag boo ci boole dëggat bopp da ngay naqaree jubbanti ndax kenn du la mën a jubbantee jubbante ba tax nga jubbanti ko sa jëkkër kay la am xolam di dagg wala mu dem ba sonn ni la fi ñukk xool leneen ko mokk rumbux xolal di ko def ba mu baax te xoolal fi nag jeg bu fi tëlee say wicc di nga xoolal di nga wiccax sa loxo bi doo ko ci ëpp ndax di nga gis ko mokkal say ni katiw sa jëkkër teeku di ko sëyee lu rëy